yaram gi ñoo ci war a jiitu yéenekaay gi di réew mi quotidien nee na am na ñoo xam ne ñoo ngi ŋàññi ni nga xam ne moom la ñu yoree coronavirus ci réew mi naan gestion bi baaxul waaye nag ñooñu dañuy fonto ndax gestion la boo xam ne lépp am na ak leerange communication ak bi nga xam ne moom lañ siy def ak bulletin quotidien yi loolu lépp tax na Sénégal bokk ci réew yi nga xam ne moom la ñuy xeexee woppi coronavirus Sénégal test yi la ñuy def test rapide yi nga xam a moo am ci sunu frontières yi loole nag tax na ñi nga xam ne ñooy waa OMS nee nañu senegal bokk na si réew yi nga xam ne moo de lañ ci ni nga xam ne moom la ñuy xeexee coronavirus taxoon sax Sénégal ñu daal di koy classé deuxième ci lu toll ci fanweer ak juróom benn réew ci àdduna bi ci ni nga xam ne moom la ñuy saytoo lu jëm ci coronavirus bi yéen a gi di réew mi ko di jee nee na taxawaay bi nga xam ne Abdoulaye Diouf Sarr am na ko liggéey bi nga xam ne def na ko ci coronavirus bi loolee ñëpp teg nañu ci seen bët waaye nag teewul am na ay complot ak ay sabotage yoo xam ne ñenn ci gars yi ñoo ko ci def ñi koy def ci biir APR wala biir benn bokk la ñu bokk te la nga xam ne moo ko waral lenn laq wucc lu jëm ci wàllum politique rawatina lu soxal wàllu mairie bu Ndakaaru yéene kaay gi du ñu xëy fekk fa benn médecin boo xam ne ab réanimateur la moom nag daat nay bind njiitu réew mi di président Macky Sall nee na ko nag balay bëy di woy mbuus jamono ji li nga xam ne moom laa xalaat mooy ñu confiné Ndakaaru ci lu toll ci fukki fan ak juróoma yéene kaay gi di l'info ñu xëy fekk fa waa ànd gësëm ñoom nag ñaawlu nañ bu baax a baax théâtre bi nga xamante ni moom la ñuy def leer ci lu jëm ci wàllum campagne de vaccination bi yéen kaay gi di Vox Populi ak L'As xëy dañu xibaar naan ñu niki démb am na lu toll ci fan fanweer ak benn ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci coronavirus bi yéen kaay gi di Le Quotidien ñi nga xam na ñoom lañ dénk wàllum xeex corona bi nee nañu ñi nga xam na ñoo amee cancer ak ñi amee drépanocytose ñooñee nañu daw vacciné wu yéen kaay gi de La Tribune bàyyi mbir moomee wax ci élection locale yi nga xam ne mbir mi demagul fenn contestation yeeka ñaxtu yi mel ni tulleeg malle ndax dafa am ay fausse commission yoo xamante ni ne mekku nañ ko dara ak sa zuwaal moo tax jamono ci maanaam ñu bare bari seen xel demutul ci li nga xam ne mooy ak leeraange ci mbindu mi nga xam ne gars yi door nañu ko yéen a gi ne ne scandale moo ci am journal bi di Source nee na en tout cas li nga xam ne moo jëm ci wàllum caution élection locale yi xam ne moom la ñu dëgmale caution bi danañu ko daal di waxtaane ñaar fukki fan ak ñett ci weeru août bi nga xam ne moom la nekk maanaam acteurs yi ak ministre de l'intérieur yéen a kaay gi de enquête débat bi nga xam ne moo jëm ci wàllum joxe certificat de résistance yi jamono ji coow li ne na coobay waaye nag bëri na ay maire yoo xam xam ne joxar bi nañ leen baaraamu tuuma yéene kaay gi délibération xëy yóbbu ñu ca diwaanu commune bu mbaan foofe nag scandale bu rëy moo fa am ndax dafa am benn libaane boo xam ne rabbi fakki la tudd kookee dañu ko jox lu toll ci mille six cent soixante-quatre cay hectares yéene kaay gi ne na loole nag scandale dil bu mag moo ci am ndax ñi nga xam ne ñoo dëkk mbaan bëri na ay village yoo xam ne danañu leen dindi foofee yéene kaay gi nee na délibération bi nga xam ne moom la ñu joxoon libaane boobee di rabbi fakki dañu ko mujjoon annulé ndax dafa yoroon ay faux document waaye waaye téewul ba léegi ma nga ngooy ca hectare yi te dafa bëgg a jaay ay privé suuf soosé ay milliards yi milliards yi milliards yéene kaay gi nee na seeni ginja ma nga ci xolu li nga xam ne mooy scandale boobi askan wa nga xam ne nag ñoo yeewoo mbaana ñoom nag mer nañu ba maara détaillé yéene kaay gi de la turbine ak réew mi quotidien nee na mafia mafia bu mag moo am ci lu jëm ci wàllum suuf si nga xam ne moo nekk si ses yéene kaay gi de la quotidien le témoin las l'observateur réew mi quotidien xëy duñu xibaar naan ñu duudu maxtaar laaye jamono ji moo nekk xalif général de laayeen Serigne Assane Seck moo nekk xalif général Thiénaba Seck yéenekaay gi ñu xëy fekk fa Assane Samba mu xëy di wax jaar-jaar ak taxawaay yi nga xam ne Serigne Abdoulaye Thiaw Laye ame woon na ko yéenekaay gi da Les Échos nee na Serigne Abdoulaye Thiaw Laye ci xol yëpp la nekkoon yéenekaay gi da Le Soleil xëy dañu xibaar naan ñu xalifa bu Thiénaba bi nga xam ne moo génn àdduna tey ji la ñu koy ma boroomam yéenekaay gi di Walf Fadjri nee na usines yi nga xam ne ñooy defara ndox yi nekk ci sachet yi usines yooyu yëpp dañoo wax ne dañu koy tëj waaye nag bu ñu ko tëjee scandale mën naa am la ko waral bokk na